grève bi nga xam ne kat yi nek ci justice kat amal nañu ko ki nga xam moy mooy jëruñ liñ dénk yoon kat aduna ci mom nee ne dina am ay daan yuñ ci tek rawatina képp ku grève ñu tek astuut ci payor bi nga xam mom lañ la wara jox wër wu nek euh, augmentation plus de 200% 200% donc def nañu ay augment def nañu ay proposition waye ñoom ci seen gis-gis dañu gis né euh, lolu ñu leen yokkal doyul motax tax euh, ñuy wëyal grève mané nak bon grève mom travailleur bu mu neex nga def te mënoo ko sanctionner ndaxte dafay grève waye yon tamit dina jël disposition pour su grève bi naree continuer ñu def ba nga xamante justice dina fonctionner. su grève bi tam continuer euh, nguur gi tam dina jël dispositif yo xamante bis yi nga xamante dang ko grève te liggéeyoo ko loolu yoon moo wax ñu dagal la parce que normalement liggéey bis bi nga liggéey lañ la war fay bis boo liggéeyul waruñu la fay. bi ñu ko laajee nag ci affaire ma Massata Diack ak Serigne Béthio Thioune ministre de la justice lii la ci tontu. ci journal yi laa lire rek gis ñu ne programme nañ ko waaw ma ne waaw lii de yëguma woon ne man programme nañ ko ma laaj magistrat yi de leen programmé programmé ngeen ko procureur bi laa laaj ne ko ah dama dama liir ñu ne programmé nañ mu ne ah man de yëguma woon sax ne programme nañ donc mosuñu ko programme donc man comme vraiment xaw ma woon foofu information fan la jóge mais euh, tribunal bi ci boppam nga xamante ni ñoom nag ñu ngi soog installé wu parce que xam nga fii bu njëkk ba amuloon TGI mais léegi dafa am TGI ñu ngi commencé installé wu sànq seen avocat bi wax na ko nee na euh, conditions yi sax dafa metti moo tax léegi nag ñoom suñu demee ba installé wu dinañu nag programme procès boobu programmer waale procès boobu. jëwriñ di dëkk wàllu justice moo ngi woon ci Mbour ngir amal fii li ñu tuddee IRCM. mu nekk benn plateforme information boo xam ne dinañ ko amal ci tribunal grande instance lépp rek ngir mën a xibaar bu baax a baax lu jëm ci wàllu registre commerce ak crédit mobilier